ay ca salaam salaam salaam ami internautes yi salaam salaam ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci TikTok bi di ñu topp Facebook di ñu topp fépp tey Pape Niang de retour au travail wax dëgg yàlla donte ni ñu ngi waajal pour dem fële ca Maroc ngir dem faju ji wax dëgg yàlla waaye dañ balaa ñoo dem lii seen naqar mooy sunu naqar lii seen njaaxle mooy sunu njaaxle lu ñu jaaxal te jaaxal leen mooy njole njole mi nga xamante ni association taxaw ñu wéri di jël nañ ko en charge faj ko ba mu wér delloowaat ko ay mbokkam njole moomu tey la waa njole moomu tey moo ràngatiku foofu mu dëkk ca Mbàkke am ci ñoo xamante ni dañ koy gën a ràngati muy dem ci xew yi ñu koy faar ay faar yoo xamante ni kenn xamut lii lan la loolee tax association taxaw ñu wéri di am lu leen metti lool ginnaaw bi ñu dugalee vidéo bu ndaw boobu ñëpp nii li association bi liggéeyoon rafet na waaye yàqaat nañ ko kon ñu ngi ciy xaaraat association taxawu ñu wéri di ndax association taxawu ñu wéri lañ ci yaakaar moo tax association taxawu ñu di jóg na du ñu tàyyi du ñu bàyyi donte ni arrêté nañ prise en charge bi mais bépp malade mental boo xamante ni ñoo la jëloon en charge nga demaat ba rejeté foo mënti nekk danañ la fa fekkaat delloo siwaat la te yàlla tax moo tax ñu ngi nii nag nekk ci yoon utali fële ca Touba Mbacké dem ngir jëli ki nga xamante ne mooy njole Diouf ngir andi ko sama kër boole ko ak kodd mbay ñu téye leen ca kër ga sama njaboot gi di leen toppatoo mbooleem membre ci Ande Taxawu ñu Wéradi di leen nemmeeku bonne volonté yi di leen jàppale ci ay yéreeg lu mu mënti doon ngir xam ni ñoom kat seen dund dafa am njariñ lool ci àdduna ndax sénégalais yi ñoo leen bëgg. waaye comme niñ ko daan baaxoo di defoo niñ ko daan baaxoo di ko defee mooy fu ñu mës a jëm rek daañu laaj yéene ay jaam ci yool bi nga xamante ne moom la ñuy dem di doxi mooy jaamu yàlla gu màgg la gasoil bi sëriñ Ibra Ndiaye Diop Serigne Ibra Ndiaye Diop nekk koo xamante ni grand transporteur nekk nekk koo xamante ni fu ma mëst dem dana ne ma pap ma ne ko waaw mu ne ma taxawal ci station sàngam mu remplir la gasoil ba mu fees waaye fan yi dafee nekkul wala boog dama koy woo fan yi jotuma ko xam naa ni nekku fi ndax moom sëñ Ibra moo jaayanteeg yàlla loolu Joob yàlla na la yàlla fay waaye li ci gën a yéeme mooy ki nga xamante ni moom mooy soxna Mbène Gueye saa bu ma wootee gasoil dana bokk ca ña nga xamante ne ñoo ciy jiitu yow mii seetaan vidéo bi maa ngi woote gasoil ngir ñu utali fële ca bërëb ba di Touba Mbacke ngir dem jëli ki nga xamante ne mooy Ndiolé Diouf indi ko fii ci diwaanu ba noppi taxawu ko te yàlla rek tax am nga yéene ci Ndiolé bëgg nga ñu jàppale Ndiolé bëgg nga ñu mettraat ko à l'abri bëgg nga ñu mettraat ko dans les très bonnes conditions mani jàpp leen ci gasoil bi ngir ñu dem jëli njole maa ngi ànd ak sama équipe ki nga xamante ni moom mooy président à l'organisation di Seydina Mohamed Sougou di Chéri kan ah bàyyi naa ko ak yéen ah kon Mbaye Kandji agali na ko muy Chéri Codou Mbaye Codou Mbaye nag nee na ma may ma Ahmed Sougou boo ma mayee Ahmed Sougou ma sëyal ko bu rafet Ahmed Sougou nag Ahmed loo wax ci loolu maa ngi ànd ci terrain bi ak bay Wuri Ba Baye Wuri nekk membre di jàmbaar caan taxaw ñu wéri di waaye Baye Sëru manqué nañu ci terrain bi tey ndax saa bu nu gëstoo gis ko waaye ñu ngi ànd ci terrain bi ak bay Mbay Mbay Kañ sama rakki bopp ji Baye Mbaye jàmbaar Baye Mbaye ci cadrage bu rafet bi gisuma Baye Pam Mbaye waaye fa mu mënti nekk xam naa ne xelam ak xalaatam yëpp mi ngi ànd ak ñun waaye maa ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy Soxna Ndiémé Cissé di moom bébé d'amour di membre ci association taxawu ñu wéradi moom Soxna Ndiémé Cissé tey nu ñu fekkee koddu mbay bu dee dafa nu ñu fekkee njole bu dee daa tilim moo koy sang bu dee dafa yére daa jaxasoo moo koy jox ay yére lu mu ci mënti doon moo koy taxawu moom soxna njéeme waaye ànd ak borom faydu bi sang Cheikh Moussaïn Diagne Baye Fall borom daaray Miftaahu Salaam borom kàddu gu woyof gi tëddal Cheikh al Murabbi la moom sang Diagne ñu fas yéene nag utali fële ca Mbàkke am nga yéene ci njole jàppal ci gasoil bi numéro Wave baa ngi noonu di 77 190 77 67 ndax ñi sant fall ña ngay sàq mi rek pam ñaa lu mu lok waye pam ñaa li mu lok du ko wax waye xam na ni ñi sant jaañ danañ lijjanti ba xam lu pam ñaa lok kon ngeen ñaanal ñu yalla tek ñu ci yoonu jamm bañu ag ci jamm dem ci jamm ñew ci jamm fekk fa jamm te ku ñu ñaanal jamm yalla na nga am jamm waye ku japp ci gasoil bi tamit yalla na la yalla teral aduna ak alakhirah jere ngeen jëf